بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا farata ji war ci loosu képp koo xam ne fii mën nga ci yëngal dara ndax dañu wax ne ak sàmm lu till yi gën a bare ak bukki yi da gën a war a bañ a nelawe da la gën a war a yewwoot ne la war a gën a farloo ci xool li muy sàmm ñu dem ba ci jamono joo xam ne yàqu-yàqu yi ëpp nañu doole ñu war a am tiit war a takku war a gën a taxawaat war a gën a boole suñu bopp di benn bokk bëgg-bëgg li ñu yëkkati di lenn li ñuy fas yéene jëfe di lenn li ñu bëgg a amal di lenn suñu boroom ko lenn nag ci muy di yàlla fawul fawul suñu borom nee na af xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun yàlla bind doomu aadama teg ko ci kaw dënd bii tàggatal ko li nekk ci kaw suuf ak li ko tiim tàggatal ko géej gi tëral ko ay yoon mu war a jaar tëral ko yoon yoo xam ne xelam ko war a topp mu di ko gindi ci lëndëm lëndëmi suuf ak leer leeram ci mépp mbir mu xew muy mu rëy mu mag l'islam xottil ko ca yoon war a jaar tëralal ko ca ay xawaayit yoo xam ne moom la war a topp su ko defee du réer mukk ni sallallahu alayhi wa sallam waxee woon ne laqad taraktuha baydaa naqiya xawaayit yooyu suñu borom tëral ngir suñuy xel ak yi mu tëral ngir suñuy cër ak yi mu tëral ngir suñu dund rek ne fi ka du soppi ko mukk dal bi xamal ne yeneen kër a ngi fi gudul ji kër gi rombuwaay la duñuy jaar kër gi këru ëppréw la bu di këru liggéeyukaay lu wax fi jaar jëm ci kër gi nga xam ne mooy kër dëgg ga ñu war bàyyi loolu suñu xel ci waxtu wu nekk ci sunuy soppiku ci sunuy dal ak ci mboolem sunu takalu dal borom xamal ñu xatar bi nga xamne mo nek ci sunu kanam ne inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al alinsanu innahu kaana zaluman jahula bi nga xam ne suñu borom yeen ci wore bi nga xam ne moom la kër gi di wore ak nekkin li fi li fi war a nekkee lépp ràññeel nu pokk yi ak kàmb yi ak dëj yi xamal ne fa amma man taga wa aaxira alxayaat dunia fa inna aljaxima hiya almawa kër gi ki fi nekk nekkinam bi mu war fi nekkee suñu borom rëdd ko ne képp koo xam ne ci jéggi nga dayoo maanaam jaar nga ko waru la jaar jox nga lenn lu mu moomul ci li ci sa kanam nga fab sa adduna teg ko ci sa kaw àllaaxira maanaam nga jiital adduna sa soxlay adduna moo nekk ci lu ëpp ni soxlay àllaaxira nekk ci sa bopp boo xëyee yaa ngi seet lu faj say aajo boo xiifee nga lekke boo maree nga naane boo afiyee nga woddoo soo dëkk ñu ngay diggaaleel loolu rek nekk sa bopp waxtu jant sooyee da sa yëngu jeex da tëdd fanaana nelaw ba biir mu wóor la ne képp koo xam ne jant sooyee nga nelaw ba biir boo waatee ne sa genn wàllu dund da nga nelaw da nga ñu kon kër goo xam ne gii nekk gi lu gàtt la te yi ñu fi yàqal bari lool te muy loo xam ne lii ci la ñuy fàggoo pour kër gënu jëm ëllëg te buñ fa demee buñ fa jógee mukk kon diir bu gàtt doo ci bëggee liggéey lu jagal diir bu amul yemukaay waruloo yendal waruloo fanaan waruloo nelaw mu xam ne ne ñi nga xam ne ne yoon ñu tëral ku ci wàññi dara wala nga yokk ci dara wala nga yàq ci dara wala nga jàpp ci lenn lu bokkul ak nam ko santaanee tëri jum la dël safaanam moom la dël ci jaare safaanu yoon woowu mu ne wa amaa man xaafa maqaam rabbihi wa naha nafsa an il hawa fa inna al jannata hiya al mawa képp koo xam ne teewul nga la borom bi la bind jël naa malaayika yi mu la booleel ñu xam ba xam sa xalaati xol di bind say jëf ak say wax waaye moom ci boppam bi nga xam ne loo ko gën a xam malaayika yi doo xef benn xefiinu bët gudul ne leer na toon nañ ñëpp loo ci xam ni lii lu ñuy war a régler ëllëg la ma nga te du ko jot mukk te nga ne wax koo fa accès loolu lépp da nga ko réglé tàmbalee bis ba nga fi ñëwee ba bi nga fiy jógee waaye nag adduna ji këru xikam la xikam moom lañ ko indee afa afa xasibtum annama xalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un këru xikam la suñu borom dafay indi nit ngir ab xikam bu xamal nit nit ki xam war a xam xikam boobu dara sax ay yëngoom yëpp ak i dalam ci dundam ji teg ko ci kaw xikam yooyu ngir ëllëg mu mel na mu séenoo mel na mu bëgg a mel